mabbatam lettre bi mu bind mooy day wax su la yonent bi sallallahu alayhi wasallam d'abord su fekkoon fekke woon mu woo la xare su fekkoon te ne da nga ñëw bu la woo nga ko fekkoon xam ne bu la woo da nga ñëw ñu ngi lay yëgal ne fii taal nañ fi taalum xare boo xam ne liñ ci jublu mooy défendre l'islam l'islam aar ko yaatal lettre bu mel noonu moom la ñu bari jot ci Sénégal euh, bàyyi maa xool ati sëriñ maa bala Aïcha moom la jot booba nag max la toll na juróom-ñeent fukki at juróom-ñeent fukki at ku ca toll mënatoo dem di dox ñeneen mu yabal doomam maa xool ati sëriñ booba ñu gën a ko fii di ñaxal booba pour Mbacke ñaxal la mu ànd ak njabootam di leen format maam jaara bu sëñ Alaxaan doon sëñ Tuubaa moom mais booba mi ngi am juróom-ñaari at jëm juróom-ñett di door a mokkal alxuraan nga xam ne lii mooy histoire maam jaara bu sëñ nekk dem format loolu dafa am solo ñu koy xam ndax mbir boo ko xamee boo koy def day gën a neex yow ci boobu xam foofu nag bañ demee am nañ mbir yu fa am yu am solo yoo xam ne nii jàpp naa ne tey delluwaat ci yoonu rek donte dina am yu ci delluwaat ci réew mi delluwaat ci diine l'islam waaye particulièrement ci yoonu rek ndax guerre bi tubaab yi nit leen ñàkk ci noon di ñëwoon di noon buur yi mooy xare Paate Badiane moom la ñuy wax la bataille de Paoskoto le 30 novembre 1900 1868 1865 1865 muy xare boo xam ne nii parce que turu Maba yi dañ daan xare góor yi di xare tubaab ñu gañe leen gañaay loolu méttee méttee gañaay loolu gañaay yu l'islam la premièrement gañaay yoon Sénégal la deuxièmement gañaay yoonu murid la parce que ci présence su Sëñ Tuubaa la amee gañaay yoon murid la ndax ci bis boobu le 30 novembre 1800 65 ci la maam Diallo Biraye li nga xam ne moo nekkoon loxol lay yor Sëñ Tuubaa ci kanam kon bu mel ni keneen loolu sax du adam ndax bi ñuy bi bi ñu woowaatee si foo mi ngi toll ci ci ci saa yi ci ndaw waaye gis nga bañ koy Biraye moo bee jiitu woon ci bis boobee moom la yónni wax ndax bi ko doon xeex ñoo koy yóbbuwaat ba mu ñëw. mu gàññe leen ñu ñëwaat kon loolu lu rëy lañ wax mu di war a jàng ci wàllu ngañe loolu xale bi nag changé na leen nekkatul ay effet ak ay fetal ak yooyu xeex psychologique la parce que dañoo déplacé xeex léegi sant jàng ba tey waaye li ma ci liñ ciy wax rek mooy bés maanaam ci jamono yooyu tam nga xam ne moo waral waxtaan bi mooy maam jaara Bousso ci jamono yooyu la nopp lu mu def ci kii ci Porokhane ñoom nag bi ñu àggee bi ñu leen dëkkal la ci Porokhane xam ne moo tudd ay Porokhane booba jaaba buñ daan ay sool di jóge am nañu ne tam ay jubaloo la fa dëkkoon waaye lu mu ci mën a doon rek mën nañoo wax ne yëpp ndax am na Porokhane soo seet am na Porokhane jubaloo ko Porokhane donc kon ñaar yooyu yëpp wér bañ demee fa dañ leen dàggal lu rëy ndax gis nga ñooro ni daa nekkoon xam bu njëkk buur yi boo masaa ñëw di kilifa buñ lay dàggal duñ la dàggal lu tuuti dañ naan dañuy lay taalal ak daay dañuy jël ak jum taal ak daay daay gi lakk ba fu mu yem ñu ne lii yaa ko moom ngir nga mën faa dal dalal fa sa njaboot wut fa say tool ku ñëw ci sa njaboot wax dëgg faa dàggal loolu lañ ciy daan dund moo tax moom gis nga bañ ko daal mu daan rek. Maam Mor Anta Sali booba te borom xam-xam yu mag yàlla bokkoon dañ mosoo ba bii ni jaay Sëriñ Tuubaa ci ñoom xaar yi lañ koy jox foofu. tam Sëriñ Samba dugg loolu kay tam nekkoon ak ñeneen ma ñoom ñëpp ñu daje foofu ngir yëkkati rajo islam nga xam ne kon maam Jaara Buso ci yëkkati raayam lislaam foofu la dese ko programme moo tax loolu di lu am solo léegi nag moom man beneen jàngat bu nekk ci foofu ndax maam ba mujj na mi 865 soixante-dix soixante-sept ñu gagné ko ci xare bi Somme loolu moo waral maa moo naan tëri jàkkaay boobu liñ fa mën a jàngate mooy toog nañ soixante-dix ans ñëwaatuñ ko kon xel day wax ne waaw Mame Diarra Bousso duñ ko mën a denc ci biir armée ñu ko dencoon fenn sax fu beeroo ñu mën a wax waaye ci biir armée soixante-dix ans ñaar juróom-ñaar fukki ak genn jaaraatu ko tey mën a identifié ba waaye loolu lu yomb a gëm lu moom lu yomb a lu yomb la ci julli bi du zam-zam li mu réere woon lu mën yàlla feeñal ko ngir jariñu julli yi kaaba gi réere woon ne mën yàlla tabax loo ko wax nit ngir jariñu julli yi tuuba gii nii réeroon mën yàlla wan nga sëriñ Touba ba teg ko ci loxoom te Touba du du superficie bi moo tax ñu naan Touba mi nekk ci biir moo tax ñu naan Touba comme Kaaba gi ak Baytul Maamur mboot yu mel noonu moo tax ñu naan Touba bu rek superficie bi am na superficie bu gën a yaatu mais li tax du koy ko wër dafa am mboot mu nekk loolu mu réeré woon mu feeñ noonu nag lañ feeñalee barab sama jaar nit ñi di fa dem di fa mën a naan di fa ndax nitu euh, yàlla fu mu tëgg dafa am dafa am lu koy dégagé loo xam ne nii kenn ci mucc soo ko jëmee kenn ku ci mën a mucc doo ko jëm boo liggéey dafa am njëggalu yàlla yàlla mën na la fa njëggal say bàkkaar faj fa say aajo ba noppi jox la fa yoon yoo xam ne nii mënu ko woon amee ci fudul foofu moo tax boo gisee. boo gisee ñenn ñi nga xam ne boo gisee ñenn ñi nga xam ne dañuy loolu sax seytaane laa koy ñu defoon bari seytaane laa koy ñu si taa seytaane dafa am information yu am dañu am ndax dafa yàgg ak yàlla xam na ne fu ñu suul loo euh, nitu yàlla dafay am lu fay dégager loo xam ne nii ku fa ñëw doo mujj fokk fokk mu affecté loolu nag am te comme nit ñi jàng moo tax mu jaww yenn nit ñi ñu xam ne nii dañu naan dañuy toj bàmmeel yee kenn mënut a siyaare ji ay bi nekk ci siyaar boobu moo tax loolu enjeu bu bu ma mën a xam la defe naa fàttali ko ngeen ñaari catastrophe nucléaire yi ma sàmm ci àdduna bi Tchernobyl ak euh, ak Hiroshima Nagasaki nga sànni ñaari bomb ci ñaari Japon. benn dëkk bi ñu ko wax Hiroshima benn bi wax Nagasaki ñi ngi ko sànni woon le 6 7 8 août 1945 boobaa nekk 77 ans su ma jumlu nit dana juddu docteur yi xool ko daa ne boobu yi américain yi sànni woon depuis 1945 moo jeexi la ci kii ba mu am laago sàmm ndegam bomb moo mën a teg foofu lu ko milliards yi ay yoon moom la wàllu yu di di dem ci environnement bi mu nekk moo tax siyaare ni wàllu ñoom ñu teg ci seen bakkan teg ci iblis la jógee rek moo koy manipuler di ko kii ba mu ñu am idéologie boobu waaye lu am am solo kenn bàyyi mbokk yi loolu mooy histoire bi nga xam ne nii ñëpp war nañ koo xam te ko li ma ciy jeexale nag ay point la yoo xam ne nii information la bu may joxe xam ngeen ne ci gannaaw mouvement bi ñuy wax ànd sàmm jikko yi defoon nañ benn proposition de loi pour déposer ko assemblée nationale pour ñu criminaliser wàllu ngóor jigéen ña ko war a gastu bañ ko gastoo ba noppi dañ koy rejeté illégalement génne ay lay yoo xam ne nii lëndu jar boo ña ko gën a diis léegi nag gannaaw suba ci dibéer bi ànd sàmm jikko yi dafa am rassemblement bu ñuy def ci place de la nation ngir taxaw teewul lañ doon xeex tey lañ ko gën a mën a nekk mbokk yi ci gannaaw am na coupe buñ fi jëloon nga ñaareel waaye at adduna bi fekk Sénégal feesoon na dell dell dell dama doon jàpp ne sax ñi ñii nekk ñu woon Dakar di ko màggal di ko sàngal ñii di blessé ñii faatu lu ñu mën a wax rek encore mu tëggeel ci moom te coupe bi bu ñu ko jotee ba noppi ceeb bi du yokk du wàññeeku jiw bi du wàññeeku hôpital yi du gën a baax route yeeg transport bi du gën a baax mbay meeg càmm bi dara du ci gën a baax. waaye teewul gis nga dañ ñu ko joxe lii may lii ñu bëgg a def nag du am kon du am ko yàlla suñu borom moo ko njëkkee criminal yi yàlla nañ ci alxuraan ñun ñëpp qaala famaa xatbukum ayyuhal mursaluun qaalu innaa ursilnaa ilaa qawmin mujrimiin linursila alayhim hijaaratan min tiin musawwamatan inda rabbika lilmusii'iin fa axrajnaa man kaana fiihaa minal mu'miniin فما وجدنا فيها خير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون عذاب الأليم ñun ñëpp jàng nañu ko yonent Yàlla Ibrahima alayhi salaatu wa salaam dafa toog ñu ñëw ne ko am na mbokki taalibe yu lay ñu lay seet mu ñëw waxtaan ak ñoom saafoon teg ñoom di leen gardeel ñu ne ko ñun nag duñ lekk duñ naan ndax ay malaayika lañ yàlla yàlla ñu te la leen waxee ne fa maa antum minhu ayyuhal yéen ndaw yàlla yi lu doon seen seeni tànk ñu ne ko inna ursilna ila qawmin mujrimin dañ ñoo yónni ci ay nit yoo xam ne nii ay criminel la li nursila alayhim xijaratan min tiin musawwamatan inda rabbika lil mujrimin suñu borom dafa préparé ay xeetu bomb yoo xam ne nii mooy taal sawar xam nga jàngoon nañu alquran qu anfusakum wa ahlikum naaran wa quduha annaasu wal hijaara ragal leen seen bopp yaay yàlla naa ma qu anfusakum wa ahlikum naaran ragal leen pour seen bopp ak ñi ngeen jaboote ci sawara boo xam ne nii matt na mooy niital ay doon donc yéere nag la yàlla jël te donte dañ koo waajal ñi nga xam ne dañoo jéggi dayoo ci ngor ku nekk ñu bind ci sa tur doon saw doon war laa baagal malaayka yi loolu lañu dina am dina dañ ñëw yónni ñu ñëw ngir baagal baax nañ naa man kaana fii haamilan mu'minin waaye dañuy settee ñi nga xam ne bokkuñ très rarement ngay gis yàlla di mbugal di settee mbugal ñaari buy ñëw day masala ña def ak ñu deful moo tax ñu naan wa taqu fitnatan laa tusiibanna alladina zalamu minkum xaasa ragal leen mbugal maanaam ñu ragal leen ay ndax ay bu jigéen du yem ci bopp borom waaye ay wee moom bi li bi yàlla yi andi daf ko yamale ci seen bopp borom nga xam ne yàlla vaccine leen bujur yi muul ay criminel muslim góor ñu jéggee dayal ci baax bu teg ne وتركنا فيها آية للذين يخافون عذاب أليم li ma doon fexe ma bàyyi ko foofu mu nekk nag loo xam ne nii da ngeen di fàttaliku ak mu nekk baax loo xam ne nii dafay des bu ngeen ragalee mbugal ñun dañoo ragal mbugal moo tax ñu koy défendre moo tax ñu taxaw ci jàngalaay kàttan pour loolu ñu dugg pour ñun de parce que ñun lii mbooloo mii daje fii nii jàng yi li muy bare bare ak lislaam jafe yooyu loolu muy dara rek dañoo fekk boo xam ne nii boo wër barab bi ba barab bi jafee gis gis ko moom kese kenn fekk ko mu sanc fii ci Touba ci jumaa jii nga xam ne booba liñ nekk dañu ci ànd woon ak kay te dàq na jamono comme napp ci gannaaw ci Touba mu tabax ko ba mu toll nii loolu ci dara dañoo ñëw rek fekk lépp lépp ñun kon dañoo am droit devoir ci suñ doom yi di ñëw ëllëg fii juróom fukki at ñu bàyyi leen fi loo xam ne ni buñ dikkee duñ ne sunu maam yi ñoo mu ñëwoon puso puso ba ñu réer danañ ne ah lii kat am na luñ fi taxawee wala xam ne moo tax tey lii ñu mën lu jàpp ji mën kër yi jëkk mooy njiitul réew mi moom leen wax mooy moom ci lim xam loolu kenn waru ko wax ci jàkk rek ay waaye loolu moom la engagé waaye ñun li ñu moom la ñu war a wax ci jàkk jàkka buñ ko waxul al nahyu al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar lan lañ koy wax ba jàpp ne jàkka dañoo war a wax teer yi baax wax ko nit ñi ñu jëfe ko teer yi bon wax leen ci moytu ko jàkka man jàpp na ne loolu dañ ko war a def ba ca dégg tam imaam yi yam invité woon ñu ñëw nañ wax yi ñoom la engagé engagé wul benn imaam engagé wul suñu Habib Diop bi engagé wul ci Mouhamadou Mourtada engagé wul beneen imaam ci Touba wala beneen imaam ci benn ñoom rek la engagé entre guillemets ak imaam yeneen ñi nga xam ne itam dañoo am ak ragal parce que soo gis boo tuddee question boobu rek ñu am luñ ci wax wala luñ ci ñu doon loolu àndal ñun li dañoo jàpp ne nekkuñu ci comp compétition ci mission la mission boobu nag dara cee dem rek fam yam nga xam foofu la yam waaye doo ci yokk yokk yokk yokk ak mukk yàlla ñu yàlla may dégg ak topp boole ñu ci ñi muy wax allazina yastabi'una al-qawla fa yattabiquuna ahsanahu tam tàgg leen dama jóge te ulaayika allazina hadahumullah wa ulaayika humu ulul albab te bañ ñoo boole te jami wax ne wa minhum man yastamiu ilayka hatta isa xaraju min indika qaalu lillazina utul ilma maada qaala anifan te xas leen dama jóge te ulaayika allazina tabaa allahu ala qulubihim wa tabaau